chers internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di di leen ziar bu baax a baax di am contentement toogaat fii seen émission sport 7 ñu def déplacement tey ñëw kër doyen lay jaw suñu papa di ko seet si comme d'habitude tey nag li waral seeti bi mooy euh, publication list Aliou Cissé pour barage yu coupe du monde diggante Égypte ak Sénégal double confrontation lay doon Égypte li ñuy njëkk a dem après soog a ñëw Sénégal doyen maa ngi lay nuyu. ma lay fay euh, laal ya di am mbégte ci biir kër gi bi euh, nga dellu see ci kontaan. cela veut dire que waxtaan wu njëkk ba neex na la. <laughs> voilà moo tax ma kontaan ci di la dalalaat la. doyen fi ñu tàmbalee comme d'habitude mooy double confrontation bi ñu jëm Aliou Cissé daan na publier listam sànq ci suba. Mhm. tey lan ngay gis lan ngay wax ci liste bi continuité la wala am na ay changement. continuité Aliou Cissé mënul woon def leneen continuité parce que xam nga moom ci boppam compétiteur la moo tax mu mën lire loolu euh, continuité soo xoolee même. ñi dugg sii duñu gan euh, euh, Sabali maa ngi koy seetaan biig euh, à Francfort mu ne mu ngi nekk ci ci ak Séville maa ngi koy seetaan biig ak Francfort mu def match bu correct dama amoon habitude di nga gis à gauche il a joué à droite droite moo gën baax ci moom d'ailleurs il a été bon ba pare comparé à celui qui était au poste, à savoir sar il apporte un tout petit peu plus de, de percussion parce que Sabali Mogan alerte Bouna. Mais n'empêche, euh, je traite le sujet en footballeur, mën nañu ànd fi ñu mënee ànd moo di léegi boo amee Sabali pour sécuriser parce que euh, euh, Bouna ailier la woon bu reconverti en défenseur. mën nga ko pousse vers le milieu mu nekk à dafay nekk ci diggante latéral ak ailier euh, danga koy wàññil déjà distance bi parce que ku bëgg di centré la euh, ak bi bi Binguru déjà ñëw na fi temps bi bu nekkee Strasbourg déjà ñëw na fi c'est bon gis nga li ñu daan reproché Aliou Cissé yëpp tey jii moo di euh, atome je me souviens avoir entendu des propos yu naan mais Aliou Cissé mënul indi euh, les même tegle que deux matchs ñooñu moo di ñu doon tendre vers une équipe type loolu sax lañu daan wax Aliou Cissé amul équipe type mais équipe type moo baaxul laa liya équipe type moo baaxul c'est-à-dire li tax équipe type baaxul ku lay seenu xam na ni ngay ñëwee euh, ba li mu daan élargir tax na léeg-léeg ku mu dugal si rek temps yi mus na ñëw en équipe nationale parce que li ñu xamul euh, un entraîneur dana woo jour bu nga xam ne soxlaagu ko mais mi ngi koy jox la couleur le ton et l'ambiance du groupe parce que avant le joueur c'est l'homme si l'homme arrive à s'épanouir dans le groupe je me souviens des propos de Pape Diop qui disait lay Sega Sakho bu xawee nekk en forme rek dama koy sélectionner parce que bu il dans le groupe c'est la joie partagée parce que dafa am joueur yu mel noonu comme disait le Brésilien Ronaldo il disait la meilleure manière d'oublier de de de de faire un bon bon match c'est de pouvoir l'oublier pour pouvoir l'oublier foog avant match bi ngeen di waxtaane lu leen di génne ci match bi di amoindrir la pression donc Aliou Cissé est dans la continuité et léegi nag il change de statut parce que avant il aspirait au gallon de champion d'Afrique léegi il est champion d'Afrique dafa ubbi beneen air parce qu'il est plus facile l'ALIA il est plus facile, euh, comme on de grandir que de rester grand rester grand moo jafe grandir du yow moom la wolof di wax naan grandir da ngay toog rek say yeel ak say tànk di gudd waxtu woo yeewoo suba rek trois mois yu nekk nga gañe waaw ngay màgg du yow mais li jafe mooy ngay mag mag moo di lan léegi da ngay mat li lu doon le Sénégal est champion d'Afrique fu muy dem dañ koy nege loolu te daf ko war gën di niru ndokk yàlla ba nga xamee ni ñun gëm nañ suñu équipe pareegul ah lal ya équipe Sénégal bi pareegul gis nga bu melee ni mu war mel neex ñu bu melee ni mu war mel nga defar bopp yi li Sadio di wax j'étais content quand je l'ai lu l'autre jour Sadio Mané pense aller dans le monde soo ko équipe ñi champion kuy dajeeg champion du monde wala nga bokk moom équipe j'ai bien aimé les propos de Sadio Mané qui maintenant a pris du galon parce que maintenant dafa commencer gën nekk leader voilà ce que j'attendais de lui gis nga mos nañ ma demander benn question Sadio Mané ak El Hadj Diouf je dis Sadio Mané moo ëpp qualité moo ëpp talent mais El Hadj Diouf ëpp personnalité personnalité bi ci El Hadj Diouf bu ci mayee tuuti Sadio Mané Sadio Mané dafay dafay séduire dans le monde et ces entraîneurs gëm nañ ni c'est quelqu'un qui doit être de niveau mondial donc bravo à Aliou Cissé man j'ai toujours cru en lui de. parce que ci consensus bi lañ tàmbali woon mag yow. j'ai toujours cru nga ne mooy yàlla dogal. gis nga lal ya xam nga lu ma lay rappeler ci Aliou Cissé. taxoon ma gëm ci moom li may wax yàgg na de te xam nga li tax ma mën ka nettali xam nga en vingt ans ou vingt deux ans. Aliou Cissé et moi nous nous sommes rencontrés une fois bi bi kii euh, si euh, Ahmedine si di lancer son journal 221 fële ca benn hôtel en ville euh, Novotel la woon defe naa on s'est juste salué il me dit laay naa la jox sama numéro parce que xam na ni aw ma ko na en 22 ans sinon la dernière fois que nous avons échangé lui et moi c'était la veille de notre match de qualification à la coupe du monde euh, 2002 contre le Maroc il m'a di laay il paraît que mësuñu gagné Maroc ma ne que si mësuñu ko gagné mais ci ay victoire d'étape c'est-à-dire ñun chaque fois que nous avons battu le Maroc dafa doon ñu une bataille de gagner mais à l'arrivée c'est le Maroc qui gagne, qui gagne la guerre ma ne que c'est tellement vrai que pour se qualifier le Maroc à la Coupe du Monde 70 ñun ak Maroc dañ dem barage Espagne Sénégal Maroc dañu dem barrage Espagne dafa ñu gagné Agadir ñu gagné ko Dakar FIFA programme match bi en Espagne ñu dem fa Maroc gagné ñu euh, gañu ñu 2-0 dem à la coupe du monde mu nu ma bii yoon Maroc du jàll Aliou Cissé de mu ni ma bii yoon Maroc du jàll c'est-à-dire xam nga léeg-léeg le joueur il a besoin d'informations yu ko permettre mu agrippé wu ci pour dugg dans le match mais xeex sax ba la ngay xeex am lu la naqadi lali bala ngay mën a xeex am lu la metti mais tant que dara naq diwuloo doo mën a xeex alors comme loolu ma ko wax dafa am lu mu éveillé ci moom ñu dem Maroc def fa 0-0 qualification coupe du monde dugal nañ sax bii bu baax par Ferdinand Coly gardien marocain bi jëli ko bal bi 50 centimètres ci biir au retour c'est Ferdinand Coly qui centre sur El Hadj Diouf qui fait le ñu ñu éliminer Maroc pour dem à la coupe du monde alors bi ñuy dem à de l' année xam nga 2002 dafa nekkoon année CAN ak année coupe du monde. comme celle-ci voilà gis nga bi ñuy dem à la à la CAN Peter Schnittger entraîneur daf ko sélectionné mu ni du dem du man dem pourquoi du dem il est aspirant au PSG te PSG dañ ko xaw avertir dañ ko xaw ni su fekkee da ngay dem à wax ñu ko. dañ ko tiital su fekkee da ngay dem àlakaan wax ñu ko boo ñu ko waxee ñu wutal le remplaçant pour quelqu'un qui était aspirant loolu mooy xam nga lan attention sa tur dañ ko bindee crayon teg gomme ci wetam sa tur kenn binde koo bic crayon lañ ko bindee te gomme baa nga ca wetu crayon ba fa ñu bind sa tur loolu mooy boo demee ñu remplacer la demul te kat joué na le dernier match de préparation contre la Côte d'Ivoire ici à Dakar ñu gagné Côte d'Ivoire a joué et fait un bon match ah, Peter laaj ko mu ni du man dem parce que aspirant la waaw aspirant le PSG nous sommes en 2000 en 2002 mu nekk capitaine lan la def ci diggante bi ci diggante bi xam nga lu mu def l'ALIA il lève chaque jour son téléphone di woote kenn par kenn il faut que nous fassions quelque chose pour notre pays les gars il faut que nous fassions quelque chose pour notre pays c'est-à-dire Dudor dafa doon dajale il était capitaine Dudor avant d'arriver dans l'équipe mu ñëw nekk capitaine loolu moo indi demul 2000 ñëw 2002 nekk capitaine bokk ci capitaine yi léeg-léeg c'est El Hadj Diouf léeg-léeg Fed c'est kii euh, Lamine Diatta léeg-léeg c'est lui et cetera et donc c'est un conquérant c'est un gagneur loolu mooy indi gisoo euh, li ma lay joxaat ba tey ci euh, ci Aliou Cissé li tax def confiance à un entraîneur baax il a fait trois CAN 2017 il était waaw 2017 dafa dem quart de finale finale ki ko gagné tir au but mhm, Cameroun la moo gagné coupe d'Afrique bi mhm. nous sommes en 2017 2019 mu ñëw final dans la continuité mu dellu si en finale gagné def lu rare mhm. une équipe qui aligne deux finale de deux finales de coupe d'Afrique kooku indice la loolu du tandu xam nga tandu mooy loo def benn yoon bala nga koy defati maam yi maam yi deewoon dellu si loolu du tandu kon def na ko deux fois d'affilée cela veut dire que tanduwul woon voilà voilà Aliou Cissé d'ailleurs équipe am xaw ko niru ci lenn nous rentrons de la CAN xam nga lu gars yi defaguloo attention man maa ngi suivre le Sénégal de sa première CAN à celle d'aujourd'hui sa première CAN nous sommes en xam nga tax ma am ci tikk takk l'allié j'étais présélectionné en 65 je venais d'avoir 20 ans j'étais présélectionné dans l'équipe parce que booba temps la présélection la présélection c'est l'équipe régionale la sélection régionale. J'étais dans la sélection de Saint-Louis qui a reçu l'équipe nationale et battu l'équipe nationale à Saint-Louis. J'ai joué. L'entraîneur m'avait approché. Je sais pas entraîneur Boba. Il y a Issa Diop, bu West Ham. Issa Diop, Sénégal, bi nekk West Ham. Maman, tudd Libas Diop. maamu Issa Diop tudd Libas Diop ñu ñu dàkkantele que Bordeaux dañ daan wax Libas Diop Bordeaux pourquoi Bordeaux au début des années 50 il est allé jouer à Bordeaux ñu tuddee que Libasse Diop Bordeaux il m'a approché il m'a dit Petit Diaw on m'appelait Petit Diaw parce que dans l'équipe il y avait trois Diaw dont mon grand frère et une autre paire de de frères comme j'étais le plus jeune des Diaw il me dit Petit Diaw tu es prêt ma ni oui mon entraîneur qui dit non je ne suis pas prêt parce qu'à l'époque bala ngay dem équipe nationale ce club d'accord booy dem équipe nationale sa entraîneur mooy d'accord donc li tax ma loolu ma am ci takk te dama ko Euh, mon élimination dama ko jooy moo tax je comprends aujourd'hui jooy j'étais déçu parce que yaakaaroon naa mën naa mon entraîneur qui ma waaw mon entraîneur qui me dit non pré woowoon pour ça te boo demee si tu ne réussis pas dafay yàq sa carrière alors ba ma ci dalee topp ba léegi ci kaan euh, c'est vrai qu'en 65 du du du kaan bu ñu war mën def conclusion parce qu'on a fait trois matchs xam nga je disais l'autre jour que kaan bi léegi la bare équipe ça a débuté par trois équipes. puis par six. nous quand nous sommes allés la première deuxième fois en en 68 c' était huit. on en 65 qui nous élimine. le but que nous avons pris nous mais l'équipe du Sénégal vient de faire sept matchs moo gën baax score deux matchs euh, un but on a fait deux matchs en 65 un on bat l'Éthiopie on fait match nul avec la Tunisie et on se qualifie pour la finale ñu nangu suñu finale ni ñu moo gën a fort 5-1 donc Aliou Cissé son équipe lui ressemble lui c'était un défenseur de garde de garde kenn du fi jaar défenseur boobu la woon yoonam nekkul ci yéegi bal Drogba la ñuy soow contre Côte d'Ivoire du jouer Eto'o la ñuy soow contre Cameroun du jouer ak kan wax leen ma wax wax leen ma le plus dangereux ma jël ko du jouer. Mhm. c' était ça Aliou Cissé moo tax défense jox ko défenseur yi. son équipe prend deux buts. Mhm. et marque neuf buts. Euh, en meilleure voilà et marque deux buts. Mhm. son équipe lui ressemble te xam na ni équipe am pareegul man xam nga ku ma koy yéene en ce moment. pour ñu war man dem dans le monde laal yaa xam nga ku ma yéene Aliou Cissé. Sofiane si on a Sofiane dem. daañu gën a sore. parce que ci yan nga koy teg euh, Sofiane. milieu parce que dañu manqué. kuy jël bal di xam nga taxaw léeg tànk lañ ci xalaat. mais boo amul ndigg doo taxaw. boo amul ndigg doo taxaw boo nee jógal taxaw rek tànk yi la ñuy xalaat mais bu ndigg li de metti doo taxaw.